li ngeen di gis nii Sénégal lañ ko defaree doomu Sénégal moo ko defar du début à la fin waaw donc moto électrique la maa ngi ko inspiré defaral ko ñi nga xamante ne dañoo handicapé. donc deux places la première place bi moo nekk nii confortable xam nga ñoom chaque jour bu ñu leen di defal dañ leen war a defaral loo xamante ne nii dafay am confort parce que lii mooy seen oto lii moom mooy seen mooy seen avion mooy seen lépp mooy seen i tànk. sama neem dema woowe ladan tamu champion champion man champion samay di defar semua ma leen moto électrique yi ndaw yi xam nga bu dafar ma defar du yàqoo ma defar ba suñu borom may fois li tax ma gëna concentré woon nak ci côté handicapé yi moy que dafa am ben handicapé bu tuddu fallu bu nek Touba donc euh, mu gis ma ci réseaux sociaux yi mom moma gëna jox confiance mu ne ma Néro man day handicapé la way su dem ci jumaay Touba yi damay am problème déplacement nu may demee ba jumaa je parce que sama loxo yi duma mën di pousse di dem te li ma la gis ngay défar ni xamna né war nga mën créer ma lo xamanténé ne dootuma puusati waaye damay accélérer di dem ci loolu laa gisee commentaire am ma envoyé ko sama numéro téléphone mu jël ma par whatsapp expliqué ma ma ne ko léegi yónnee ma pousse pousse bi nga yor bi mu ñëwee donc ci laa def sama première création. sama création yëpp euh, ñoom laay gën a xalaat ñoom laay gën a xalaat parce que ñi nga xamante ne yàlla suñu borom may na leen ay tànk mën nañu génn ñu jël kaar wala mën nañu génn ñu jënd ñu jënd scooter wala moto wala oto. donc ñooñu jaruñoo xalaat parce que xalaat nañ leen ba pare mais ñi nga xamante ne dañu leen a fàtte ñi nga xamante ne bokkatuñ ci askan wi ñi nga xamante ne nii donc lu waay di def seen xel du dem ci ñoom man ñooñu laay xalaat naka laañ mën a def ba nga xamante ne dinañ avancé dinañ mën di dox seeni soxla comme ñépp bi dafa laaj nouveau champion Mais au nouveau champion, mais au nouveau champion, man, my nouveau champion. Nouveau champion. ci loolu laa leen defaral chaise boo xamante ne déjà balaa ngaa toog mën nga ko tourner ah pour nekk à l'aise comme que ñoom seen tooguwaay du neex voilà gis nga ni ma ko tourner nii ba toog ba pare après ma tourner waat ko pour mën a jàkkaarloog sama volant donc ci biir volant bi aussi dama ci def ay option ay option yo xamantene ni manam da fay gëna da fay gëna da fay gëna neex ci moom pour bu koy dawal donc là amna option bo xamantene ni téléphone la hein mën di wuyo fi téléphone directement bu paré euh na mën activer bluetooth bi ba nga xamantene ne di déglu musique tamit deuxième saisie mo nek ni donc voilà gis ngeen ni mën nga mën na parce que bu njëkk da nga daan gis ñoom ñoo daan faire. mais am nañ possibilité Yobale, am nañ possibilité and ak seen soxna am possibilité and ak derrière bi aussi mon comme avant bi ngeen koy ay signal détresse la ko ko euh, feu arrière au moins même buy daw gi ko gis bu baax ok am ay aussi genbi wane rabu leer mel ni jant ci teen bi bu xamul sama neem dema woowe ni Nero nouveau champion Nero nouveau champion man nouveau champion nouveau champion nouveau champion champion ci game bi foog ma bége nii. bii maa ngi ko defaral xale yi nga xamante ne tamit ñoom tamit ay handicapé war di jàngi xam nga te duñu am possibilité pour jàngi parce que déplacement bi day metti ñoom donc lu ñooñ tamit ñoo ma tax a bi ba nga xamante ne dinañ mën di jàngi ji facilement. ah duñu am benn problème moom tamit 50 km laa ko defaral ba pare ak sécurité boo xamante ne mooy loolu donc gis nga comme xale la day laaj sécurité euh, chaise bi am na ceinture boo xamante ne ni voilà mu mën na toog takk ceinture de sécurité am na sécurité ni nga gis ni donc gis nga ko donc mouvement bu mu mënti def du daanu 3 amortisseurs laa ko defaral donc fii dama ko defal amortisseur Euh, pour confort bi arrière bi aussi am na amortisseur bu mag ak beneen côté bi. champion meeru nouveau champion man maay nouveau champion ñu ci bëri da ngay gis dañuy commandé ay chaise roulant lu mel ni comme bii euh, ki ko moom daf ko commandé ki ko moom daf ko commandé mais bi mu ñëwee fii fi mu dëkk dafa am suuf su bëri ba nga xamante ne mënu ko faa dawal donc loolu mooy problème commande bi extérieur ak ñun ñun nag boo ñu commandé dañ lay laaj fi nga dëkk dañuy dañuy xool environnement bi nga nekkee ci loolu lañ lay defaral chaise boo xamante ne nii di mën a am tranquillité boo koy dawal. c'est 100 pour cent made in Galsen ah, bu leen xeeb seen doo réew parce que léegi jamono ji dafa changé te lépp lu ñu mënul woon ci jamono yi maam léegi xale yi léegi. dañ koy liggéey ni ñu mën a defaree lii mën nañ defar oto électrique mën nañ defar moto électrique comme nii donc lépp loo xamante ne luy électrique mën nañ ko defaree fii ci Sénégal bu fekkee ne nguur gi jàpp na ci wala yenn autorités yi ñu teg benn entreprise bu mag commencé di liggéey fii ci Sénégal